donc tey ñu ngi fi am ki nga xam ne moo di lay Laye Diaw ak euh, maître El Hadj Diouf Laye ngi lay nuyu Diaw. maa ngi lay fay. Mm-hmm. maa ngi nuyu Sénégalais yi. Mm-hmm. ndeysaan. looy jooy. sama xol sama xol a fees. lu lu sa xol fi dan lu laajal boo laajee rek dinaa la tontu sama xol euh, fees. Euh, final bi nag loo gis ci Coupe d'Afrique bi ak ki nga xam ne rek moom moo di Papa Thiaw. liggéey ndeysaan euh, diggante final bi. Mhm. dafa nekk final bu am solo. Mhm. ndaxte Sénégal ak Burkina. lii. Sénégal ak Burkina. waaw est-ce que nga tëddoon bi ak. Euh, Burkina. waaw <laughs> waaw Sénégal ak Algérie. xam nga Algérie. Euh, ndeysaan gis nga. soxna si. bi ma gisee Mbappé démarqué. Mbappé laa ne Mbappé ba. Mbappé France. Paris Paris Algérie. Euh, euh, li mu def dafa neex. ndaxte. Euh, qualifié final lii lépp lii neex na. football nañ ba pare gagné nañ ñun ñoo jël coupe d'Afrique bi yow. ñoo jël. ndax est-ce que da nga doon nalaw da nga doon nalaw ah nopp bi euh, nee ko. Euh, Adja ah. nee ko nee ko waaw ah. nee ko Algérie. Algérie ak Sénégal Sénégal. mi ngi dégg mi ngi dégg football. Ah. léegi nag Pape Thiaw. moo nekk entraîneur. waaw waaw waaw waaw waaw Pape Thiaw. waaw kooku Pape Thiaw moo dugal. première bi mooy entraîneur bi. waaw mooy entraîneur bi. léegi Pape moom moo ko Aliou Cissé. Ah. ñoo bokkoon doon nekk ñoo nekkoon. deux mille deux waaw 2002. Ari Camara. kon gis nga ni ñu excès. waaw hmm. jël na li nga xam ne moom moo di final coupe d'Afrique bi. waaw moom mu ñëwaat. waaw jël final bi. Ah. léegi yow nan nga gisee loolu. en tout cas daal. alhamdulilah sant yàlla mbaa jox nañ leen xaalis. parce que président jox na leen defe naa ah ku nekk 45 millions. ah 10 millions. 10 millions. léegi euh, léegi damay may tuuti kii euh, euh, yéen ñi nekk ci réalisation may leen tuuti. parce que dama bëgg a wax ak moom tuuti. waaw waaw waaw. micro bi waaw Algérie. waaw nekkal professionnel. déglu ma waaw dama lay wax yoo xamoo dara nag yoo xamoo yaa gën a amateur ñëpp. wuy ma Algérie. Hmm. ak Sénégal ñoo doon football. Algé euh, Sénégal moo gagné Macky Sall président Macky. oui ma damay wax dama lay wax président Macky Sall kon wax ko comme que yaa ma dama lay parce xamoo ci dara yu xamoo ci dara yaa ngi wax Mbappé. kon loo ma woowee. parce que xamoo da ngaa naax. waaw mi nga tudd ci Mbappé ci affaire yi mooy lan Mbappé. day football. fan moom ak Bayern wala déedéet. waaw waaw waaw max boobu am na. man li may wax lu am la. mais laaj la loolu yow. loo ma laaj. dama ni laa nan nga gisee. coupe bi démb ba Afrique kontaan nga. bëgg naa président Macky jox na joueur benn bu ne dix millions. du quarante cinq millions waaw dix millions na. tuuti na ñun dugal un million trois un milliard na leen jox tuuti na. à l'époque lu ñu daan joxe à l'époque mosuñoo gagné à l'époque <laughs> à l'époque gañe wuñu woon ñu ngi soo a gañe mais ñetti coupe yi ñu rangale noonu laa ngi dellu si laa ngi léegi voilà léegi ñetti coupe yi ñu rangale noonu ñetti coupe yi ñu rangale muy coupe d'Afrique waaw ak coupe du monde ak beach soccer waaw muy ñetti coupe kon mu ngi ñëw waaw ñetti coupe yi nga xamante ni bii Sénégal gañe na ko waaw parce que Sénégal li waxoon naa ko ay jamono foo ko waxee woon maa ngi ko waxoon à 1983 1983 ci laa waxoon di mhm. Sénégal li muy football Ablaye Diaw dégg nga Omar Pène way ko. Mhm. Ablaye Diaw daan na wax naan football ci réew. bu ah, club yi baaxee. équipe nationale yi dëgër. wanaan nga leen yoon wi am solo la. loolu mooy wane ni fi mu toll nii équipe nationale yi li tax mu dëgër. Mhm. mooy club yi ñu ngi commencé baax. dëgg la a boo demee GFC. wala nga dem Casa. wala nga dem Mbour wala nga mais football bi mi ngi commencé dox. Mhm. loolu moo sabab fi ñu yegg tey ñu yegg fi. Mhm. macha allah kon yow boo sañoon. waaw euh, président au lieu que de yi. waaw yow ñaata nga wax ñaata waroon na jox joueur bu mu gàtt gàtt parce que ñii ay joueurs locaux lañ. Mhm. ku ci na am cent millions. et eh. cent millions bari na de. yóbbu ñu séddale leen milliard bi. parce que ñoo ko indi. yaakaaruñ ko woon. te xale yi dañoo sonn. dëgg la xoox. dañ leen waroon a jox. xale dañoo séddale dañ leen ko waroon a seddale parce que li président def xam nga lu muy signifier. waaw mooy terrain yaa ngi jaay leen ko parce que 10 millions mënut a tabax. terrain 500 mètres. dëgg la rek 10 millions mënu ko tabax mënu ko fondement. Mm-hmm. kon jox na leen terrain waaye joxu leen luñ ko tabaxee kon xale yi ku leen jege temps yi ñu jaay la kayitu kër. Ah, d'accord d'accord. waaw ah, loolu jërëjëf.